yaa indi yàqati jëndaa. yow man nag nan laa def ba topp ndox. man dama doon joué ak dama yow aw ma doon benn téeméer ceeb bi nga xam ne dafa yokk yokk man de taali may nañ ci jënd kilo ceeb ah nga dem jël kilo téeméer ba andi la kat andi la kat andi la ah, kat andi andi la kat. waa Ndiol foo leen laajee fii. soxna Dia. suul nañ po bi. may sagal. Eh, man loo naqari mooy samay état di réer. grande, um beijo. nañu ñëw fekk la fii ngay yéeg nit si ba daanu ba gaañ sa bopp. anam yaa ngi ko seen yaa ngi ko gis gisuma dara man. yow moo ngi dañ ciy daanu rek maa ngi jëlee sa daanu bi. ba nga am lépp. maa ngi lay yëgal la waaye. addi daal la. alors suuna suuna. yow maa ngi nii jaww waay. keroog bu soppi ñëw dina la lijjanti léegi sama yaay ngay attaqué. waaye yéen dafa wan ne xale bu góor ndax dinañ dafa gént moo tax. ah gént boo gé boo géntee nii ngay def dina leer. sama roloon matul tingoom ma tingoom ma. ma tingoom. dama ma ma ne ma su ne ko. bu ma kii damaa wàcce. ah. ñëw attaque ni kii. sama loos yi xale bi xaw naa damm sama loos sama yaay ah yaa na ma defaral ma dégg nga kat ji ah yaa na ma defaral ma de yow mi gone gi doom te nga bañ a tee dog di continuer di wor rek di continuer di wor bu ndogu jotee nga bañ a dog continuer waxuma la loolu waaye suum ba léegi sànq ba léegi maa ngi lay wër foo nekkoon. waaw wax naa la ko itam nee naa la kii mu laay yokkoon téeméer ko dama jënd man kay man kay man looloo ma jaaxal man wër bi ñu gars yi sànq ba léegi na ñooñu ñëw ñoom ñëpp jot naa ko rek. mooy bu ma def foo nekkoon. dama leen xaar ba ko su ma yeg moo nga woo jaar nga jël membre yeeg yëpp. looy def ah kon yéen a ngi ah dama génnoon wallaay waaw boo ñëwee ma expliqué la. waaw ok d' accord à tout à l' heure. yaa meeraw bu jom boobu ñaaw mënu raane mu ci soo ba tey yow yaa ngi jël ndox bi di sotti ci sa kanam. génn ci man bienvenue. bienvenue bienvenue boo gënu ci man dinaa la dóosóor yoo xam ne wóor na yàlla dootoo nekk laa bienvenue ci kër gi fii ci man naanal dimbali ma dafa tàng yow mi jël butéelu ndox bi mi sottee ba tey def sa yére bi ci la ma mag amee kon mais ma ñe barki ko da may boole dinaa ko wax danga ko wax naan la bu meer bi ndox bi may la gerte saf moo njàng du danga may booleeg sama yoon ñëw ci. yoon ñëw ci. yee. Rosa. mère yow mère mère mère lii baaxul. ah Ang yan naman dumating. Hindi man may hindi, may ubalik siya chong. Wala siya mo, ma'am. Ubalik siya. Ubalik siya. Yung hindi yung biyahe ko jungle, ma'am. lii bu amul woon man. non non waxuma loolu may la. yaa ngi ko

teg na sama portable ak sama jaaro xaare na apa ak ak samay jaaro tay nay metti ko ko ko ci carte tey jii moom maay baatare moom tey dafa war a dafa war a leer. amee bien sûr waaw waaw waaw waay ba ci lan. dafa war a leer xaw ma de nañ ñu tey xaw ma de nañ ma de yow. waaw ki ngay baatare yooyu ku ko takk de 200 rek lay jar yi ma ko dañ maa jaaral. dara moom. teg naa kilotuñ kilotuñ ñoo xit bi. kilotuñ ñoo xit bi ku koy sol. man demee